alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaw asalaamaaleykum leen di nuyu Malben euh, ñu ngi leen di ziare bu baax leen di ci bés bi nga xam ne suñu bés la ñun ñëpp euh, démb la ko euh, ci teewaay imam ak xalifa ñu ubbi ko buñ ko ubbee mooy booyal nañ ñëpp mën nañoo jàng gannaaw buñ ko ubbee nit ñaa ngi wooyee nag fu ne di ñuy jox seeni i lim. gannaaw bu ko ni ki démb ci ngoon sax am na ñoom am na ñu ma jot ci seeni i lim tey jii tamit noonu am na ñoo xam ne tamit dañuy bàyyi ba ba suba ci àjjuma bi liñ jàngoon àllarba ak alxames ak àjjuma ñu ñëw werse am na ñoo xam ne nag buñ jàngee saa buñ jàngee rek buñ paree dañuy ñëw la jàng nañ nangam bu defee nga tey ñu defaat noonu ba àjjuma ñu def noonu bu ko defee ñu pare ñaari xaaj yooyu moo fi ne ñii dañuy joxe buñ pare ñii dañuy bàyyi di jàng di jàng ba àjjuma ñu ñëw verser waaw nii kaamil bi nag wax dëgg yàlla am comme ni nga ko gisee mooy sëriñ daara ñu ci def itte ñu ngi ci def eh, parce di ciy def euh, ab góor góorlu bu rëy rëy rëy soo paree nga gëstu leen ñoom ñëpp boo demee da nga fekk kenn ku nekk sëriñ daara bu ne mu ngi toog ci daaraam di la xale yi xale yaa ngi jàng loolu moom seetlu bu ñu def la te ñun ñoo ko seede te ñun ñoo dem ci ñoom fekk leen ñuy jàng euh, di leen ñaanal yàlla Eh, yàlla gën leen a dëgër gën leen a taxaw barkeel seen i daara di xam ne kaamil yi kaamil yu texe la kaamil yu fi bàyyi sos la pour ñaan yàlla yemelu ko ci yemelu ko ci ab toppam ñëpp la ñëpp pour xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la jullit ñëpp la ñëpp a moom euh, kaamil bi biñ ci yéene pour ñëpp la duwul pour boppam duwul pour taalibeem duwul pour kenn xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñëpp kaamil bi te lii nii nga xam ne imaam fas na kóllëre dëgëral taxaw taxawu kóllëre ku ne xam na imaam ak kóllëre imaam kóllëre kese mu jël ko dimbale ñu dooleel ñu ne ñu ca kaw ca kanam te ngeen góor te xam ne ta ñun lu tax ñu moom ñu ñu jël tey liggéey bii taalibi baa ko ko man cër la bu ñu yàlla jox te cër boobu dañoo fekkoon suñuy waajur liggéey ci liggéey bu rëy ba tey ñun defaguñ fi dara lu tax ñu ñuy jox waaye barke boobu moo roogaan ñëw ci ñun te bëgg nañ def loo xam ne tamit imaam dana ci kontaan xalifa bi kontaan njaboot ak baay gi ñëpp kontaan taalibe yëpp kontaan xam ne dëgg dëgg liggéey bi jaar na yoon te loolu lañuy bëgg te ñu ngi ñaan yàlla defal ni loolu wax dëgg yàlla nit ñaa ngi jàng buñ commencé fajar gi ñëpp dana ñëw am na ñoo xam ne fi lañ julee fajar am ñoo xam ne buñ julee fajar la ñuy ñëw buñ ñëwee ànd ak seeni xale di jàng di jàng ba ndekki jot am na ñuy dem ndekki am na ñuy toog ndekki fekk leen fii buñ paree ñu ñëw balaa buñ ndekkee 9h balaa dis h nga gis leen ñu ñëwaat buñ ñëwee ba une heure ñu ngi ci jàng maanaam mbooloo mi boo gisee tante yi fees na boo seetloo tante yi ñu defoon talaata ca guddi bañ xëyee dañ koo yokkaat waaw dañoo yokkaat am na tante yu ñu yokk fii am na yeneen yu yokkaat di wane ne euh, maanaam luñ xayma woon ne. attentes yi dana ko mate ëpp na ko kon am nañ yaakaar ne dëgg dëgg euh, résultat yi ñu bëgg dana ko am incha allah waaw ñi nga xam ne nekkuñ fi comme ni ko imaam euh, yëgle mooy dafa joxe ay numéro numéro yoo xam ne ku ñu ci woo da jot am na yoo numéro bi am na whatsapp am na tamit euh, plus boo xam ne ku ñu woo fii da ñu jot ku ñu woo ci whatsapp bi dang nga ñu jot pour ñi nga xam ne nekk nañ bitim réew euh, di di jokkoo ak ñun foofu ñi nga xam ne ñu ngi fii ci biir réew mi di jokkoo ak fii bu ko defee euh, loolu imaam joxe na numéro bi mooy 77 635 48 25 77 635 48 25 yaakaar naa ne amatul jafe-jafe. ndax daaw dajaloon nañ ci ay ñoo xam ne oo nañu fu ne di indi résultat ci numéro bi ren tamit yaakaar naa ne loolu mooy def ndax même numéro bi moo fi ne nit ki moo fi ñaan ñaanal imaam ñaanal xalifa bi ñaanal njaboot ak baagi ñaanal taalibe yi yëpp yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfeex. nuyu di leen ziar bu baax di sant yàlla comme ci li ñuy laaj nii li nga xam ne nii moom la ñuy laaj kontaan nañ ci trop. ci xéwal yi nga xam ne ni Baay Ñas moo ñu ko may xéwal la yu rëy rëy rëy ku ko seetlu da ku ko dëgg da naan xéwal gënu ko rëy ndax euh, alquran lu em ne alquran amul lu gën a rëy alquran Baay def ci lu rëy ba pare bàyyi ñu nag lii lu rëy ba tey ma ko wax tey suba dama ne Maulana Cheikh Ibrahim lii mu sos nii pour ñun la pour adduna bi yëpp la pour jaami yàlla yëpp la doonut pour taalibe mi rek doonut pour jullit rek pour adduna bi yëpp la ndax gëm nañu loolu ci yéen te Cheikh Al Hadj Abdoulaye Niass moom Maulana Cheikh daana wax loolu ne na bàyyi bàyyiwu ci dara ci adduna bi jaami adduna bi jaami jullit yi adduna bi yëpp am jàmm ndax Baye Niass mu ngi mel nii comme ni yeneen bi mel rek. sallallahu daf ko royo roy ba far nekk ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan alamin bàyyi moom it dafa nekk yërmaane ñeexal mboolem aalam bi nit ak lépp luy dund rek ci nga bokk lépp lu am ruux rek ci aalam bi nga bokk lu am ruux sax ci aalam bi nga bokk lépp lu nekk ci àdduna bi rek gàtt gàtt bi bàyyi dafa doon yërmaane ñeexal lépp ñeexal ñëpp pour fépp loolu tax lii dañ ciy kontaan trop démb ba tey wax dëgg yàlla li ma ci jàngat mooy lii amoon ci gannaaw muy corona nit ñi dañoo sant yàlla affaire bi dafa am xale yeeg mag ñi ñëpp kontaan ndax la passé woon mu corona boo amoon bi nga xam ne daaw jàng kaamil bi amul wax dëgg ren nag mu mel ni nit ñi alhamdulilah dañoo firi dañoo am xurriya dañoo am indépendance daal ba nga xam ne alhamdulilah lii yal na yokk yal na sax li fi amoon ba amut euh, daaw jàng kaamil amut yeneen amut yàlla loolu bu fi amati corona lu mel ni moom yàlla bu fi amati li ma gisee xale yeeg mag ñeeg ñëpp ak jigéen ñëpp kontaan. ba nga xam ne dafay mel ni la amoon daaw métti leen trop te kenn xamut yàlla moom yàlla moom la neex mu am bu neexuloon bu neexuloon yàlla du am ak lu ko mën a amal ak ku ko mën a amal su fekkee ci comme ci nii wax yàlla la neex rek su neexuloon yàlla li moo xam corona dëgg la moo xam lu dëgg yàlla du am loolu du am yàlla yàlla jëlee ko fi yalla bu lu mel noonu yàlla bu fi amati ba àdduna tukki te lii dafa doon jàng kaamil dafa doon ñeexal àdduna bi yëpp rawatina ñooñ alquran dama ne bàyyi def na ko wante man gis naa ci jàngat naa ci leneen am na leen lu ma ci gis mooy ñun ñooñ ñooñu alxuraan ñooñ alxuraan dañ ci kontaan dafay mel ni ñun ñoo ko moom day tax ñi fàtte woon ñooñu alxuraan jàngikati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi ak ndongo yi daal ni ko taalibe yi day tax lii seen xel mi yëpp delluwaat ci alxuraan kon ñun kenn ëppale wuñ ci lii maa ngi wax ne man yàgg naa ko fekk at yu bare bare bare bare bare bare 82 fukki kaamil laa daan jàng man kenn fukki kaamil trois jours yi àllarba alxames àjjuma fukki kaamil laa daan jàng man kenn ba léegi loolu dama kaa yokk wante wàññiwuma ko man ak sama daara alhamdulilah macha dafa yokk lool cent pour cent wala deux cent pour cent macha allah ñu ngi yàlla ñu yàlla fayal bàññis yàlla ñu yàlla fayal bàññis yàlla ñu yàlla fayal bàññis barke alquran barke Seydina Muhammad barke sama Allah barke Maalaji